ma كيف فعلنا بهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا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 اتخذتم العجل من بعدي ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورأيكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه الله عقبت غزل passos وقضينا Senghor فلما تبين عصا قلت في

وحسن معا صلاة الكمال على بال الجمال حبيبي محمد صنيع الخصال ñoo ñooy ahlu bayti Mustafa Novo? نفوسكم tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin amma ba'd mbokk yi assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu ñëpp di ziar di leen balu ax tey baal ax ñëpp di ñaan suñu borom yàlla ñu yàlla boole jéggal di dellu di sant yàlla di ko gannaaw boobu ñu defalee tawfiix yi ñu dajewaat ci jataay bu tedd bii di jataay boo xam ne jataayam islaam la ndax jataayam alxuraan la waaye di jataayum teral ay jullit jullit ñoo xam ni suñu boroom da leen boole te ña nga xam ni ñoo war a wattu téereem bi muy ay njaboot ne woon ci daara ji ànd ko mbokk yi di liggéey ba yàlla seppi ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu wattu alxuraan ci wattu rafet ñu daje fii war leen a teral war leen a sargal ak doomu aadama ñoo ànd ba yàlla bindee doomu aadama ba léegi waaye jàpp nañ ni ku ñuy man di teral ci kaw suuf teral ki nga xam ni moo yor lu yoon saa sa bàyyee woon moo ci gën a yey te loolu mooy jataay bii loolu nag bu la yàlla defalee tawféex nga bokk ci wala lu la ciy tudd da nga koy sant yàlla boo ci sante yàlla ba noppi nag da ngay daal di ubbi say bunt ubbi say néeg ngir gan ñi nga xam ni dañuy ñëw waxoon naa ko daaw jéeg ne tawféex gën te bis bii ñu jël ko defal la ko ci sa gox waaye tawféex gën ta màgg ci kaw suuf nga am dëkkandoo yu mel ni ñii nga xam ni 24 heures sur 24 ñu ngi yëkkati alxuraan di ko jàng loolu bu la yàlla woo matalee loolu ba ñëw nga xam ko xamoo ko fexeel ba am noo ca jàppe ngir mbokk ca ñoom saa sa bokkoon ni ñooy kiy jàng wala kiy jàngale wala ki sopp ñooñu alxuraan wala kiy déglu buñ koy jàng. loolu nag la yàlla xéewale ci njaboot gi nga xam ne moom la ñu booleel kon yéen gan ñi ñu leen di wax ni yegg si leen ñëw ngeen ci seen i kër ñëw ngeen ci seen i mbokk ñëw ngeen ci seen i néeg bu ci kenn gàttee ñu ci soxla soxla su mu am na ko wax bu soobee yàlla ñu dëkk ci gox bi daañu ci taxaw di wax ni oustaz ñu ngi lay delloo di la di la ñaanal yàlla yéen di gën a woyof ku xam li ngeen di daj ci daara ji ku jege daara ji dina xam ne ay sacrifice yu mag a mag a mag a mag la daa daara ji def ngir am résultat yi waaye nag du neen da am na liggéey boobu bu ko nit di liggéey da jàpp ni lii du neen faaw di ci am payu bi yàlla te fii lay tàmbalee soo ko dem fële yàlla ko yàlla boole ñun ñëpp kon ñu ngi wax mbokk mbokk yi ginnaaw bi ñu njukkee njukkalee delloo njukkal ñi nga xam ne seenu njaboot ñoo mbokkal yegg si ngeen seeni kër ànd ngeen ak seeni mbokk dal leen ak jàmm yàlla yàlla def tànk ñëw aw yiw tànk dellu yépp di fari bàkkaar te jataay bi lu fi waay def ci wax mu néew bari yàlla ko yàlla boole sa ndabal yiw ëllëg insha allah yàlla am na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal bu ko defee ñu wàcc foofu kàddu gi di wax ni daal ñëw ngeen seen kër daara jaani nii ñu ngi ciy woo ñëpp rawatina nag ñi nga xam ñoo dëkk ci bi waxoon naa ko daaw jéeg dama koy baamtu kuy ñëw ngay teeru ay gan defe naa yaa war jiit ci barab bi kon ñu ngi leen di soññi ndax ñoom ñëpp ñu ngi gi dañu ñëw te ni bis bi tàmbali na seen yëfu bopp la ci quartier bii nga xam ne dama ko waxe woon maam Abdou Aziz dañ ko tudde daara ji oustaz loolu ñu tudde ko suñu maam Ahmad Ndaat Seck ñaar yooyu nag gox bu ñu dajee waa gox ba seen xel war naa dañ ci ne ay xéewal rek fay wàcc kon yàlla ñu ko yàlla defal yàlla yàlla taxaw liggéey bu ustaas yàlla yàlla sàmm njaboot gi ba mu bu déwénee bu ñuy jël ñu am ñaar yoon du ñu am rek yàlla am na ko mën na ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ما سعى ساعا ونبى منب بين المروة والصفا معشر الإخوان والأخوات assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw sante yàlla borom bi subhaanahu wa di am ak kontaante lool ci yabal bi nga xam ne moom lañu yabal pour ñu jël kàddu ressortissant yi génne ci daara Imam Ahmed Ndack Seck ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne bi mooy alxaaji sëriñ Xasan Seck teg ci ki nga xamante ne bi mooy sëriñ Xalifa Ibrahima Seck di jiitalu daara ji teg ci ki nga xamante ne bi mooy al ustaaz Mouhamadul Muxtaar Diop jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu jàllale ko ci mbokk yi nekk ci daara ji ñëpp di parents d'élèves wala di ustaaz wala di ndongo ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax a baax di leen tatagal di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum xam naa ne nag kàddu yi kàddu yu néew lay doon rek kàddu sant ak gërëm lay doon ndax yaakaar naa bu ñu waxee daara imam Ahmad Ndack Seck képp ku ko dégg rek sa xel dina dem ci liggéey bu rafet bi nga xam ni moom moo fi am te ñu ñi fi jaar yàlla baaxal ñu ñu jaar ci daara ji bokk ci ñi nga xamante ni bi dañoo formé ci daara ji yaakaar naa loolu doy nañ ci seede ndax daara ji comme ni ñu ko xamee trois mission yi nga xamante ni bi moom la nit am war koo doxal daara ji ci ñett yooyu lay dox ndax nit boo xoolee ñett moo ko composé muy xel bi xol bi te mooy ruux bi ak yaram bi te li aju ci xel mi mooy xam-xam bi nga xamante ne bi moom la doomu aadama soxla di xam-xamu diine ak xam-xamu àdduna daara ji ñi ngi ciy def seen kémtalaay kàttan di ci formé boobu di ci formé nangoy bu baax a baax beneen bi tamit mooy li aju ci wàllum xol bi te mooy ruux bi ñoo ngi tàggat ñi fi nekk bu baax a baax ci lépp loo xamante ni bi luy tax ñu gën a mën a takkoo ak seen borom la bi nga xamante bi nag moo ci des te mooy jëmm ji ñépp xam nañu ni daara ji kat mi ngi tàggat ndongo yi bu baax a baax ci lu jëm ci wàllum armation armation yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir daara ji pour man leen a tàggat comme ni ko yàlla borom bi subhanahu wa taala digalee ci alquran wa aaddu lahum mastataatum min quwa wa min ribaat alxayri turhibuuna bihi aduwa allahi wa aduwakum trois missions yooyu nga xam ne daara ji ñu ngi liggéey suba ak ngoon di ci xëy di ci gontu ci lu toll ci fukk weer ak benn yaakaar naa loolu liggéey la boo xamante ni bi jar nañu jaajëfal leen jar nañu ñaanal leen ci waaye tamit jar nañu taxawu leen ci ci bépp côté bu ñu ko manee loolu moo tax ñun ñi nga xamante ne bi ñooy ressortissant daara imam Ahmad Ndak Seck ñoo ngi sant daara ji bu baax a baax a baax ci ñetti formation yooyu nga xamante ni bi jàppale nañu ci ba tey ñu agsi fii ñu agsi waaye tamit di ñaan ci parents d'élèves yi di ñaan ci ñi nga xamante ne bi ñooy dëkkandoo yi di ñaan ci ñi nga xamante ne bi ñooy mbokk yi ñu jàppale daara ji zahiran wa batinan jàppale daara ji shaklan wa manhajiyan ci bépp anam bu ñu ko mënee ci wàllum doole ci wàllum xel bu rafet waaye tamit ci wàllum ñaan ndax daara ji kat ginnaaw bu ci yàlla defee tawfiqam ñun ñi nga xamante ni bi ñoo fi génnee ak yéen ñi nga xamante ni bi yéenay parents d'élèves yi yéen a mën a taxawu daara ji ba réussir man ci am incha allah yaakaar naa bu ñu xoolee ki nga xamante ni bi mooy Cheikh Anta Diop nekkoon borom xam-xam bu mag a mag a mag daan na faral di wax maan formez-vous arrachez-vous des sciences jusqu'au dents et garder votre patrimoine culturel loolu nag buñ ko déggee dañ ciy xamee ne xam-xam mooy lépp xam-xam ci la nit mën a defaree àddunam xam-xam ci la nit mën a tabaxee li nga xamante bi mooy avenir waaye tamit xam-xam ci la nit mën a tegoo ci yoonu siraatal mustaqim kon nag loolu nga xamante bi daara ji ñu koy def ci ndongo yi ñoo ngi leen ci sant di leen ci jaajëfal di leen ci ñaanal ci turu ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy ressortissant daara Imam Ahmad Ndack Seck yaakaar naa bu ñu bañee guddal rek mën nañoo yemale foofu kàddu yi ndax kàddu yi nekkul lu dul kàddu yi sant kaddu yu ngërëm kaddu yu jaajëfal waaye tamit kaddu yu feddali kóllëre bi nga xamante bi moom la yàlla dogal mu am suñu diggante ak daara imam Ahmad Ndack Seck ñoo ngi jégalu bu baax a baax a baax ci kaddu yi di leen jaajëfal di leen tatagal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni bi yéen lay gàññi di leen wax encore une fois dal ak jàmm